mais jangat bi ci am man ba amé ñun en tant que conseil de la jeunesse jël avons une responsabilité parce que ndar na personnes 15 ndaw des étudiants euh, ba ñun en tant conseil de la jeunesse jël responsabilité dem si quartier Pikine mastaw ñi nga xamné sen ay doom fa si biir kër ak dem pour mastaw pour ñaanal xamni ni ndeysaan du bon mbon dañu bëggoon dem rek tek yalla dogal loolu mais tamit du ñu tee à chaque fois bu ñu ko occasion mayee daanu sensibiliser sunu moroom ndaw yi ni leen mbir mi mi ngi bitim mi ngi mi ngi mi ngi Sénégal gi Sénégal amna yoon ay possibilités ça veut dire que mbir mi sobal bëggal dara dugal ci internet bi demal envers l'information ngay loo soxla am na sa biir dëkk bi nga nekk laajteel am na ñoo xam boo laajtee dans la texte yoon dans la encadre ba fi nga bëgg a yegg nga yegg parce que bitim réew dañuy wax rek dara nekkatu fa am na sa ñu nekk bitim réew ay France Italie États-Unis xam ni ñu ñibbisi nañu am na ñu may woo suba ngoon guddeeg bëccëg bëgg ñibbisi toog fii même bu nu amoon salaire ru deux cent mille trois cent mille du nu demati fofu kon ça veut dire que ñom am nañu possibilité nek seen réew euh, nan fi tok bo bëggee tukki wutal sa ay kayit lu leer wutal sa ay passeport wutal sa une invitation nga demander comme ñep parce que bu yalla dogalé sa wërsëg bitim réew na nek kenn mënul muse waane ba inshallah bu nexé suñu borom do dem bitim réew bobu xamni mo sa rêve mo sa bëgg-bëgg mi nga xamni tamit amuñu chance dem bitim réew nan tànn seen chance fi parce que yalla su la indee aduna jappal ni amna na lum lay préparer fu mu mënti doon bu dee bitim réew la yàlla si boppam moo lay orienté ba nga dem fa di jaalewaat sunu frère yooyu génnaat àdduna nekk ay doomu na nekkoon ay brave jeune yàlla neen leen yàlla xare àjjana ñi si dem tamit rëcc tamit ñun tamit sunu ay xarit lañu ñu ngi waxtaan ak ñoom xool possibilité yi am ñu leen koy jox pour li nu bëgg tamit ñu am ko pour jàppale seen quartier jàppale seen réew jàppale seen dëkk.